sëñ am sa fas àll bi ci xas yi rek lan la xam sëñ bi sëñ am sa fas àll bi والجلال خليلي سمبريحان زلمت أبي سلم حياتي فتت في الخباب ريخا زلتها بي تحبي الكلم حيادي فتاة في الخطاب علمون حريث نبض كريم عليم الراكدون كدلنا والجرابان عليم alimun alimun nadbun karimul alimul rawa nahwa jalaa wal jalaali الله बता दे الملك سليمان حالة بين النساء انتزاع بالله طيفنا عمو يزودي يريد العجا ولا ما شرع بيا ضيفا أمو إن تودي سليمان سليمان وعلى تبين غيرنا زاد زاد لولا سيد الندب مرجع يندب مرجع سمك جاي يندب مرجع Yeah. jërë ngeen jëf xaadim laa ilaaha illallaa kay baana te Sulaymaan baala bay baynana saata isaabe subaaxul amru sanadal

مسألة بيننا ذات انتساب ولا أصل دواما عن سليم لا إله إلا الله وإن وصل أصول إلى تلا لا إله إلا الله فكيف نعم الرسول سليم ولا تبين أننا ساتات سابق أنحى ولا تغتر ببالي تكرأ فذلك لي سيا ربي كيف مدل سليمان تسابق فأسبك من جدا خرام لا أسيل سمي المتواضع في الباب فكيف أنا من سلطة سليمان سليمان وعلى تبين كل والي لا إله إلا الله لمن وفى خير وصحابي أمو إن سودي مولاي ما بيننا سابت بسابت شفيع صلاة ربي لا إله إلا الله مع تسليم بالآل صحابي mbooloo bi xasida gi jeex na ku jóg taxaw màggal sëñ Tuba yàlla boo amee tànk yu mutu ku jóg taxaw màggal sëñ Cheikh Mbacke yàlla boo amee tànk yu mutu jóg leen bil Cheikh Mbacke ne alal عبد سفيع صلوات رب لا إله إلا الله تسليم بالآل صحابي سفيع صلاة رب ما تسليم بالآل صحابي شيخ مكين على العادي سفيع صلاة تسلم بالآل سحاب في صلاة ما تسلم بالآل سحاب سرندك نير مصطفى باسم مول di xul wa gulon te taxul ba di joola waaw waaw Mustafa ba ci بعد قل وقل فتح بعد جعلا قل وقل فتح بعد جعلا سرين تالي ولا جل ولا نخلا كسر di bayam yu ko neex laa jël dulle gënu ko maaje lu leen koy ma delloo ci benn doom daa ab daawa tam yee puddi baatin bu jar di seetaane damay wal ba di boole way ni sooda way ni sooda way ni baatin bu jar di seetaane war tuuba damaaroo bu ku seetal mu naa ma kay laa ilaallah jiital li ma jiital la neex laa ajee munama kay la munama kay la lu la neex la baata maro bu ko seetal munama kay la la jiital na li ma jiital lu la neex la baata maro bu ko seetal munama kay la munama kay la munama kay la moom na ko tuubal malaaka ma seen mbir ma mu jiital ay nga ay nga ne ko tuubal malaaka lay gaañ te ànd ak mandal mu dem ba tuubal ral jéebul mu bun dem ba Touba ki mandal lu la neex laaj sëriñ bi jara àndal bale njuut njaajeel lu la neex laaj sëriñ bi jara عقيدة كونوا مع شيخ الأنباء الأخبار كل أناس تحقق بسنايا أسار ليلى أو سراج سلام أنار ليلى سنايا وسار ليلى نار ليلى أو سراج سلام نار ليلى دوكم بزايا أسار ليلى أو سراج سلام نار ليلى mbooloom Serigne Saliou nga ak ah, sopp Serigne Saliou nag te dugal taxaw màggal Serigne Saliou. dugub màggal Serigne Saliou yàlla am téeméeri at. ma wayla malaga tonti gete wayla sharaw ya rabbi bazak rijal la la la la ma wayla malaga tonti gete wapa sharaw ya rabbi مثل ديقين طيب. مالا وجمالا أزال وذخين جخاب كرمارا مويد بالبن لا إله إلا الله يفتي وأنيتي والأصل بسم الله جخاب كرمارا مويد بالبن لا أنيتي والأصل بسم الله سرين بامبا دوسين toppandoo du sey la la mu ngi déglu mi dem mi borom aras la Bamba du seen mappandoo du seen maam du seen maam na ngeen déglu mi dem mi borom aras ma pirim jës bu balaam wax danaa ko jàmba ba ngeen xam ni Sëriñ Bamba la di rabba la la pirim jës bu balaam dana ko di rambaas borom bi le semmal na saanu bargaas baraka ma jàngal ko saanu poroxaana bi le semmal na saanu ma jàngal ko saaru poroxaara kolkaar bi la semmal na saaru mbargaan saaru mbargaanu ma jàngal ko saaru poroxaara kolkaar bi la semmal na saaru laa ilaaha illallaah ma jàngal ko saaru poroxaara saaru mbargaanu kama jàngal ko saaru lu xaar Tuuba borom taar bi la semmal na saaru kama jàngal ko saaru poroxaar borom taar bi la semmal na saaru mbargaanu kama jàngal ko saaru sama jàngal ko saaro forxa borom daar mi le semmal saaro bargaan bargaani saaro bargaani saaro forxa ortuba karamaati junay ndeeti mboote la ilaha illallah cagrawu nga kolam mboote tax te la foora di lay foor di fooroo sa law nga ko lamboo te daa ci laa fooree aramaa te rijaaley sa mboo palaas yañ war a màggal la say gone yi toogoo aramaa te rijaaley sa mboo bitum ne sa mboo bitum ne palaas yañ war a màggal la say gone yi toogoo àndal ci baatin melal ay layla la nena yaa nanu nandal bi jaay maamo jaay maamo bi jaay baatin melal mi nena yàlla nanu nandal bi jaay jaay layla la ci baatin melal ma ay layla

bëggee jot suñuy vidéo da ngeen bës Sàmm Xasida TV ngeen abonné suñu chaîne YouTube bi ngeen mën di jot bépp vidéo a dugal da ngeen ko mën a ci xasida ci xasida lan mën a xam sëriñ bi